wa ala alihi haq qadri maqdaril azim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin wa iz sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una alquran فلما عذروه قالوا أنشدوا فلما قضي ولوا إلى قومهم فلما قضي ولوا إلى قومهم منشرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب عليم wa man laa yujib daa'iya llaahi fa laysa bi mu'jizi fil ardi wa laysa lahu min duunihi awliyaa ulaa'ika fi dalaalin mubiin mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu borom tabaaraka wa taala sant ki nga xam ne moom la yowoo ab jaam sant ko ko ca lott ja ñu koy dogal ngànt ci suñu néew cant ko waaye di ko fesal suñu yéene ci buñ ko mënal matal ak cant ñu matal ko ko di julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallama moom mi nga xam ne mooy gën gi mbindéef moom la yàlla suñu borom yónni ca teg ko ci kaw mboolem doomu aadama yi mu bind yépp mooy ci gën lépp lu suñu borom bind ci diggante asamaan ak suuf dellu di jaajëfal suñu jàmbaar ju afeexoon alxadim radiyallahu anhu suñu borom dolli ay ngërëmam ak i leeram di ñaanal Seex Muhammadul Muntaxa Mbàkke suñu borom guddal aw fanam may ko ak wér ba li mu naalal liggéeyal sëriñ bi ci yoon wi mu àggale ko ci ànd ko taalibe yi noonu nañ koy ñaanale suñu bunt yi nga xam ne ñoo ñu buntoo ci yoonu sëriñ Touba muy njabootu Seex Babacar Thiargane ñoom it ku nekk fa nga nekk suñu borom. may la sa pas-pasu àggale yéene ca fas wala sa maam bàyyil ginnaaw loolu ñu dugg ci bis bu màgg bu tedd bi nga xam ne kon jublu nañ ci liggéey bi ni ñu ko doon defee fekkee waat nañ ko ren yàlla na yàlla suñu borom may ñu ñu fekke ko ay déwén yu bare bare bare bari ci di ko def defin wu gën a rafet suñu borom nungul ñu ko muy ni ñu ko taamoo doon defee rek saa bu ñu programme bi tàmbalee danañu jël ay yenn ci ay xale yoo xam ne sëriñ Moussa natt nat na leen ci seen alxuraan bi ay tuut tànk ñu segg seenum jàng xool ca tànn ci ay nit ñu fa seenoo ubbi mbir mi ci wala bis bi ci jàngum alxuraan comme ni ñu ko doon defe ñu ko daara ji doon defee boobu ba léegi di jàng ay kaamir kon day mel ni tey moom li ñu koy njëkkee mooy xale yi toog tare yenn ci ay saar wala yenn ci ay ayaat ñu ubbee ko biig bi loolu nag comme ni ñu ko doon doxee rek bu ñu ëskee ci waxtu yi bala ñoo tàmbalee tari bi ñu jël ay jàngale yu ndaw ak i soññ ak i fàttaliwaat ci alxuraan ndax alxuraan moomu ñuy jàng aay ju ñu jàng sàng suñu borom tabaaraka wa taala nit ñi nettali bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkee ci benn barab di fa jàng alxuraan ba mbooleem jinne jëmoon ci ab barab romb yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàng alxuraan ñoom jinne yépp daal taxaw ku nekk wax sa moroom ni leen nañu teewlu nañ alxuraan ji nga xam ne walla wax ji nga xam ne nit kii mi ngi koy jàng ndax yéene gi mu yéene ak kattan gu ci suñu borom def ñoom keroog ba ñu teewee fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jànge moom sax gisu leen waaye ñoom dañoo mel ni dañoo yeew seeni tànk ñoom ñépp kenn képp ci ñoom ne bu kenn sax yëngu xef sax bu ñu ko mënoon def bu kenn xef ndax ñu mën dégg li yonent bi sallallahu alayhi wa jàng ñu mën koo mokkal mën koo jàpp ngir ñu yóbbu ko ja ngir ñu yóbbu ko ci suñ ñoñ bu ñu demee doon fa ay waarekat ak i jàngalekat kon jinne yi cër bi nit ñi am ci alxuraan. ñoom moom lañ ci am waaruñ ci war a bay ñoom it ñoom waar woowu lañ ci war a bay moo tax bañ demee dañoo mujj doon ay jàngalekat war ñu mujj doon ay sëñ daara ban demee dañoo woo seen mbokk yaat woote ca pénc ya ñii woote ca mbedd ya ñii woote ca kër ya ñu daal dañu dey dégg nañ alxuraan joo xam ne wax ju yéeme yéeme yéeme yéeme la waaye nag alxuraan ja moom lañ ca gën a jàng ca gën ko caa dégg mooy xam na ne daal wax la joo xam ne li mu digtale wala yoon yi mu rëdd képp ku ca teg sa tànk suñu borom dana defal ak mujj waaye yoon la téere la boo xam ne wax jaloo wax ja wax la joo xam ne képp koo xam ne mooy nga ndigleem yoonu rëdd nga mooy ko bàyyi ko jël weneen yoon yow di nga tàbbi ci am mbugal moo xam ne kenn du la mën a dindi ca mbugal mooma kon sagam ñoom ñoo am wàccuwaay woowa tamit kon ñun ñii di doomu aadama yi nit ñi war nañ ci am wàccuwaay wu rëy rëy rëy di ci def suñu njaboot ak suñu xel ci di ko jàngale fuñ toll bokk na ci alxuraan jooju suñu borom wax ne wa man ahrid an sikri fa inna lahu maichatun danka wa nahsuruhum yowma alqiyamati ahma suñu borom nee na alxuraan ji képp ku ko dëdd képp ku ko wan ginnaaw képp ku ko fat wala nga gëmm bañ koo xool bañ koo dégg danaa la defal dund gu xat ci ëllëg yowma alqiyam danaa la boole ca way gumba ya nga xam ne ñoom bi ñu gis yoonu siraatal mustaqim way jëm àjjana ba cay dem ndax kon gumbaal yowmal xiyaam mooy kun suñu borom nar ka texeer rek wala comme nar a tàbbal ci yow ca safaan ba suñu borom it suñu borom it téere boobu nga xam ne moom lañu ñu wàcceel nee na ñu jàng ko farata la waaye ñu jàngal ko suñu njaboot it farata la kon téere bi na waajur bu nekk xam ne. fexe ba sax njaboot jàng ko daa doon farata ju mat waaye boo sàgganee ba jàngul leen ko it ëllëg yoonu xiyaam na ci li suñu borom di jagle diggante doom ji ak waajur wi moo tax jàngaloo ma alxuraan loolu ëllëg yowmal xiyaam bépp jàmm suñu borom bind nga doon ab jullit bala ngaa jéggi siraat da nga ko layoog sa njaboot ëllëg lan moo tax jàngaloo ma alxuraan alxuraan jooju nag lañ ci doon wax sax suuf nit ñi bari léegi dañ koo jàppane ab téere la bu ñu suñu borom wàccee ñu mool ko ba mu jekk teg ko fi ngir ku am ku dee rek ne woon leen ma waa kër diw ñu jàngal ma alxuraan déedéet alxuraan tax koo jóg alxuraan suñu borom andiw ko fi ñu koy jàngal ñu dee ñi rek wala ku am kër booy sanc wala ku am sa barab booy sanc nga ne kaay ma fi loolu alxuraan tax koo jóg alxuraan yitteem kawe na loolu loolu nag lu baax la ñu amee yaakaar lu ñuy amee yaakaar ne mën nañ cee mën nañ cee barkeelu def ci tawassul jaar ci ba suñu boroom walluñu ci liñ koy ñaan waaye alxuraan moom loolu tax koo nga suñu boroom di wax naay yaasiin wal quraan al xakiimi innaka la min al mursaliin ala siraati al mustaqiim tansiilu al asiisu rahiim li tunsira qawman maa unsira aabaa'uhum fa hum xaafiluuna laqad haqqal qawlu alaa aksarihim fa hum laa yu'minuuna nee na koy yaasiin yow Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam wal quraan al hakim giñ naa ci alxuraan ju tedd ji ne yow innaka la minal mursalina yaa ngi bokk ci ñi ñu yónni kon foofu leer la yonent bi salal salam ne ko yow de ci ci nga bokk waaye nag dama laa jox ab téere téere boobu nag tansiilun dama ko wàcce waaye lan laa ko wàccee li tunzira qawman maa unzira aabaa'uhum fahum gaafiluun ngir nga waar ngir nga jàngal ngir nga yee ay nit ñoo xam ne nii seeni baay ak seeni maam kenn mosu leen a jàngal kenn mosu leen a yee kon njariñal alxuraan loolu mooy li ko tax a wàcc ci kaw suuf yahdi ilal haqqi ala siraatal mustaqim day jundee it waaye day jëmale ci yoonu dëgg suñu borom waxaat ne yéen nit ñi kan moo pare ci yéen ngir jàng alxuraan man koo mokkal ba wattu ko kon lii lañ ci doon soññe rek ndax waxtu wu gudd kon téere bi ñu bàyyi ko xel ci di ko bàyyiloo xel njaboot bi ca di ko tamit jàng fu ñu di nekk di ci fas ndax nit ki moom bu fekkee ne dëkkoo nag alxuraan rek boo léegi yomal xiyam alxuraan da koy dëkkoo moom bu ñu koy jàngalee ci ginnaaw wala bu ñu ko jàngalut kon na fexe ba jàngaloo ñëpp bàyyi ko ci boppam ndax borom risaala day wax ne ci téeram boobu muy wax risaala day ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na tax anna taxlima li fira anna taxlima kitaaba la taxliila fixaara li kitaabillahi yurtifa xadaballahi ndaka xamal bi ngay xamal ndaw ñi téereb yàlla bi day fay merum yàlla kon nag luy fay merum yàlla moom ci kaw suuf ab jullit bu nekk war na caa bàyyi xel war na caa jublu kon ñu gàttal foofu wax ji ci jox suñu ilimaan mu def ñi nga xam ne ñoo war a tari ñu commencé insha allahu taala eh, lim seen tur ñoom ñëpp ba xam ñu ngi ci wala déet bala ñoo commencé lim kon suñu li kàddu gaa ngi moom allah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 ñu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu comme ni ko sëñ Abdias Ndiaye waxee rek sagom mi ngi guddi ñu rappel tur yi nga xam ne ñoo war a tari ba xam ñoom ñu ngi fi ñu ci baas gi am déet sëriñ Mouhamadou Diagne soxna Kumba sëriñ Fallou Thiam sëriñ Moustapha Mbay soxna Ami Sarr sëriñ Majju Njaay soxna Ndey Thiam soxna Maam Awa Njaay sëriñ Basiiru Thiam sëriñ Cheikh Ibra Diop soxna Maam jaar Jaara Seen soxna Yaa Seynabu Njaay ndumbe jaam soxna xawa fay sëriñ saalihu Diagne sëriñ Moussa Thiam soxna may Thiam soxna kumba njaay sëriñ ibrahima nduur soxna yaasin njaay moom ndey fadu soxna yaasin njaay moom ndey jëxu buñ ñooyu tuur ñoo fi ñëw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 أن جعل إلها واحدا أن جعل إلها واحدا منه مو مو مو bismillahi rahmani rahim zaat wal quran zikri bal lazina kafaru fi sixan wa saxan kama xalaqna min qabli min kali fana dawala tahina man nadi wa jibon an jaakum munziru jaakum munziru an jaala ilahan wa khilatan inna asala sayun waskur malahu malahu min qum wasbir ala khaliqatikum wa wasbir wasbir ala khaliqum malahu ma sami'na fi mal inna hadha la sayun inna hadha la sayun yuraduna ujabun inna hadha la sayun rijaw ma sami'na وانطلق الملأ منهم wa an talaxal malaawu minhum man talaxal man talaxal malaawu minhum man talaxal malaawu minhum minhum minhum anim soo wa asbir ala alixaatikumoo wa asbir ala alixaatikumoo in xaasa in xaasa la sayun yuradoona ma samixna ma samixna min xaasa fi la fi manati laaxirina in xaasa ila ixtilafun in zala alayhim sikil bayna bal hum fi sakin diisaka min zikri bala maa yasoxoona asaabu an kiddi xumoo jisaahu rahmati rabbika rabbil asaabi xum am lu xumoo mulku maa fi samaawaati maa fi laadu waa mbayna xumaa fal yatoxoona fi lasbaabi jullul maa hunaalika maxsum min nasaabi kasabat xubul xawmu nooxi noor fi na faw fi rawna si law taali wa xawmu lawti maa asaabi laykata ulayka lasaabi ni kullum kasabat rasul faa xiqaabi wa سهرة وسلطنا ملك وآتينا حكمتي وفصل خطابي وخرابتاك وراتاك نباه خصمي استطاوروا استطاوروا محربا وإسنهادوا إف إف دخلوا وإس دخلوا إف إف دخلوا إف دخلوا عليهم إذ دخلوا على داود قالوا ففزع منهم وقالوا لا تخف خصمان بغضكم على بغض وبغض على بغض بالحق وتصدق على سواء الصراط فاحكم بيننا بالحق فاحكم بيننا بالحق وتصدق على سواء صراط إن هذا أهله تسع وتسعون نهجة ولنهجة وحيدة فقالوا أكبرنها في أذان في خطاب فقالوا قد سلم خبزه نهجته إلى نهجه من كثيرا من كثيرا في قرآن لا يبغي بعضكم إلى بعض إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات زانوا عن ما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا فغفرنا له وخندنا وخندنا نصفا وخصنا مع بن يدانا إنا جعلناه خليفة فاحكم بيننا فاحكم بيننا فاحكم بيننا فاحكم بيننا وتتقي على سواء فاحكم فاحكم بيننا بالحق فاحكم بيننا بالحق فاحكم بيننا بالحق يدل عن سبيلي ولا ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى يدل عن سبيل الله لهم لهم ان الذين يدل عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب لهم عذاب شديد وما خلق السماوات والارض وما بينهما وما بينهما وبينهما باطلا ذلك الظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أما يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أما يجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا صدق الله العظيم jërëjëf ba tey ñu woo soxna Kumba Ndour sóoratun Sumari bismillahi rahmani rahim tanzilu kitaabi minallahi azizi hakimi inna anzalna ilayka kitaaba faabudi bilhaqi faabudillaha muhlisan lahu diina ala lillahi diinu xaalisun walazina taxasoo min dunihi awliyaa manahbuduhumoo ilaa liyuhariboona ilaa lahi zulfa inna allaha yaxkum baynahum fima hum fihi yaxtalifoona inna allaha laa yahdi man huwa kasabun kafaaru la warada allahu an yatahisa waladan lastafa لما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله وحيد قهار خلق السماوات والأرض يكبر الليل على نهاره ويكبر النهار على ليل وسهر الشمس كل يجري لأجل مسمى له وأسيس غفار ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك الملك لا إله إلا هو فأنى تشركون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده كفرا وإن تشكروا يرضه لكم ولا تسير وسيرة وزر أخرى فينبئ بكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله خلقه قلت متخ بكفرك خليلا منك من أصحاب أمن هو خانت نانا على ساجدا وخائما يخسر لاهرة ويرجو رحمة ربك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى سأجرون أجركم بخير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف وإن أسيت ربي أسى بيوم أسيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فأعبد ما شئت من دونه وقل إن خاسرين الذين خاسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو خسران مبين لهم من فوقهم سلال من النار ومن تحتهم سلال ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فتقون والذين اجتنبوا تقوة أن يعبدوها وأنبوا إلى الله لهم البشرى وبشر عباده الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة أصحاب أفأنت تنقص من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم خراف من فوقهم خراف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله ميعادا ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابع في الأرض ثم يخرج به ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله خطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب قل يا أفمن سرق له صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للخاسية قلوبهم أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يهتدي بوجهه سوء عذاب يوم القيامة ألا يوم القيامة وحيل للسالمين سوء ما كنتم تكسبون كسب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فاساقهم الله خزي في الحياة الدنيا ولا أصحاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا ورجولا سلاما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة يوم القيامة عند ربكم تقتسمون صدق الله العظيم jërëjëf kon ba tey ñu woyee liggéey bi di woo Serigne Fallou Thiam Serigne Fallou Thiam suuratun Mudassir أعوذ بالله من الشيطان bismillaahi rahmaani rahiim yaa haaru naazilhu fanzil wa rabbaka fakbir wa siyaabaka fatahhir wa rijza fahjur wa laa tamnun tastakthir wa li-rabbika fasbir fa izaa nufira fi n-naari fasabbih yawma idhin wasil al-kaafiriina ghayra yasiir zanni wa maa xal wa idaa l-wajaa'atu lahu maalun mamduudan wa baniina shuhuudan wa ma'addatu lahu tamhiidan سمعته عن نشيد قليل وكان يأتي نشد هو صمد إنه فكر فقتل كيف حدث ثم قتل كيف حدث ثم نسى ثم أدبر واستقبل فقال إن خازي الأسد ba tey ñu wéyal liggéey bi sëriñ Moustapha Mbaye suuratul xalam bismillah si Moustapha auzu billahi mina rajiim bismillahi rahmaani rahiim نون والقلم وما يبصرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ولا يبصرون بأيكم المفتون وإن ربك هو الأعلم بمن ضل عن سبيله وهو الأعلم بالمهتدين ولا تطع المكذبين ولا تدعن ويدعنون ولا تطع كل خلف مكين كما المسائل من من مناخ لخير مهتدي أسيم من قتول بعد سالك سليم عن منك كان السماء وبنينا إذا تلا عليهم آياتنا خلا ساتير الأولين سمنا سيمه على خدمنا بلونهم كما بلونها أصحاب جنات فإذا أقسموا ليسلمونها مسبحين ولا يستصنون فتاها عليها تاريخ من ربك وهم نائمون فأصبحت كسرمين فتنادوا مسبحين صدق الله العظيم kon ba tey ñu woy liggéey bi di woo soxna ami Sarr soxna ami Sarr suratul abas auzu billahi mina saytaani rajim bismillahi rahmani rahim abasa wa tawalla an jaahu rahma wa ma yudrika la'allahu yasakka ayasakkaru fatanfahu sikra amma man istahna fa anta lahu فمن سعى سفره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتلت الإنسان ما كفر من نسي هله من نفاق هله فكبره ثم سبيلا يسره ثم أماته فكبره suma isaa saa ansarahu kalla lama yaqdir ma ammaruhu fa yansuru linsanu ila taxamihi ina sabanna ma saban suma sahanna laddu sakkan fa anbatanna fantabatanna fantabatanna fiha habban fa anbatna fiha habban fa anbatna fiha habban وحنابا وحدبا وسيتور والنهال وهديها حبا وفتحة وعبا ما لكم ولا عن آنكم فإذا جاءت سحاكم يوم يفير مرح من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ سهم يبنيه وجوه عليها حبرة وجوه يومئذ وجوه أسن مسافرة ضاحكة مستبصرة وجوه عليها خبرة ترهقها قرب أولئكهم كفرة فجرة صدق الله صدق الله أسن kon ba tey ñu woy liggéey bi di woo Serigne Majju Njaay surdun saariati Serigne Majju bismillah bismillah rahmaan rahim wa وناسات نسن وسائب حسن بخل مدامرات أمرا يوم تلجف راجفر تلبقى رارفت قلوب يوم يزن واجف أبصار خاغازة يقولون أنا لما دولون في الخافر إذا كنا خساما خيرة خالو تلك سكت إنما خسكات في سوق بسارة فلا تاك حديث موسى إذ نادى ربه بالواد مقدس توا أصحاب إلى فرعون إنه تاق فقالك إلى تساك وليك إلى ربك فتصرف له راية كبرى اكتسب وعسى ثم دبر يسعى فخسر فنادى ربكم والأخلى فانصر الله هناك عن الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يسعى أن تؤمن سمعت خلق العلم سمعت بأنها رفع سمكا ساقوا واتسع ليلها ورجع طواها قد بدا سالك دخاها أخرج منها ماها مرها وجب رسها متى لكم لكم سيأتي مد كبرى يوم يساق الإنسان ما سأبلس رجعه لمن يرى قد خلاه العظيم. kon ba tey ñu woy liggéey bi. di woo soxna ndey caam suratul mujaadala soxna may caam bismillah bismillaahi rahmaani rahiim xad sami allaahu xawla llati tujaadiluka fi zawjiha wa tastakiru ilaa llaahi wallaahu yasma'u taxaawurakumaa inna llaaha samii'un basiirun allaziina yasaaxaruuna minkum min nisaa'ihim summa yaxuuduuna bimaa qaaluu fa taxriiru raqabatin min qabli an yatamaassa faman lam yajid fa'itaamu sittiina miskiinan waladnaahum wa innahum إنهم لا يقولون منكرا من نخل وسار الملاك لا خفون خفر الذين يساهرون من نسائهم ثم يقولون لما حالوا فتحرير ركبة من حبل أن يتماسى سالك تاسون به والله ما تحمرون فما لم يجد فصيام صغرين متتابعين من حبل أن يتماسى فما لم تجد فطعام ستين مسكين سالك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك خدول والكافرين أسار الله النميم إن الذين يخادعون الله ورسوله كبيتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات ولكافرين أصحاب المحيط يوم يبأسكم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم أينما كانوا إلا هو رابئهم rabbi uxum wala xamsati ila xosati saaxu la tunaan min saalika wala min saalika wala kasaari ila maaxu ayna maakaano suma yunnaay bi ma amiloo yawmal xiyaamati na laaxe bi kulli shay'in alima lam tara ila lazina nooxi an najwa suma yoxoon liwa noox weta naajoo bilisimi xudduwaane bi ma lam wa yaquluun fen fu siixi lawlaa yu aasibuna laaxu saaxiira bi naqul xas buxum jaaxana يصلوا النخاع فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تناجوا بالإثم والعدوان والمعصية وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضرهم شيئا لا يحزن الله ولا الله يتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا سهل لكم تفاسقوا في مجلس فأفسحوا يفسح لكم تفاسقوا بمجلس الله أفسح الله ننصر فانصر يا الفاق الله الذين منكم والذين أوتوا حلما درجة والله ما تعملون خبير صد الله عظيم kon ba tey ñu woo soxna maam Hawa Njaay sortu naasiati soxna maam Hawa bisimilah. auzu billaahi mina saytaani rajiim bismillahi rahmani rahim wal naasiaati harha wal naastaati nasta wa saabihaati sabhan wa sabbihaati sabhan mudawiraati amran yawma tarjufu raajifatun talbaquha raadifatun qulubun yawma isin wajifatun absaaruha haasi'atun yaquluuna ana lamalduuduuna fi haafirati isaa kunna xisaaman nahibratan haalu tilka isaa منكرتها سرت فإنما هي شجرة واحدة إذا هم بساحرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى أصحاب إلى فرعون إنه طغى فافعل إلى أن تزكى واهديك إلى ربك فتحصى فأعرض لا كبرى فكذب وآذى ثم أدبر يسعى فنادى فقال أنا ربكم الأعلى ثم أدبر يسعى ثم أدبر يسعى فنادى فحسر فنادى فحسر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى الآخرة والأولى إن في للآخرة والأولى إن في ذلك فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى فخصه الله نكالا لاهرة ولولا إن في ذلك لاهرة لمن يخشى أنتم أسد خرخا من سماء بناها صدق الله أسيم kon ba tey ñu wéyal di woo Serigne Basirou Thiam sëriñ basiiru Thiam suuratu nabay bismillah sëriñ basiiru auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani أما يتساءلون عن نبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أن إلى ربها وجب أولادهن وأزواجهن وجعلنا نومكم سبحا وجعلنا النهار ماسا بنينا فوقكم سبحا سراجا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المسرة ماء ثجاجا لنخرج به حبا والباتا وجنات ألفافا إن يوم فزكايا مهاتا يميل الزهد فتاتنا أبان واتخذ السماء فكان أبوها وسوير الجبال فكان سرابا تقينا مابا لابسين فيها أقابا لا يذوقون فيها لا وسيرت الجبال سيرت الجبال فكان أبوها فكانت سرابا فكانت سرابا تقينا مابا لابسين فيها أقابا إن جهنم كان مرصادا مرصادا تقينا مابا لابسين فيها أقابا لا يذوقون لا يذوقون لا يذوقون لا يذوقون لا يذوقون فيها بردا ولا يذوقون فيها بردا ولا سلاما إلى حميم وصاغا جوسا وفاقا إنهم كانوا لا يجدون كتابا وكسبوا بيتنا كتابا وكسبوا انتخاقا لا يسمعون فيها لغوا جزاء من ربك أتاها حساب رب السماوات صدى الله عظيم تكبير تكبير تكبير kon ba tey ñu wéy liggéey bi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 من سنوبكم ويأهلكم إلى أجل مسمى ناجل إذا جاء لا أحل كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا والنهار فلم يصبهم داعيا إلى فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جاءوا أصابعهم فأسانهم واستقصوا ثيابهم وساروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني إني أحلمت لكم وأسررت لكم إسرارا وقلت أستغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وهذا kon ni woo soxna Saynabu Njaay sóoratul xalam soxna Saynabu bisimilah بيمينهم ونسيلهم من أصحاب ربهم مشفقون إلى أصحاب ربهم خير ممول ونسيلهم لفروجهم خابسون إلى على أسوادهم أو ما أو ما ملكت أيمانهم فإنهم خير ملومين هما مبتهى ورأى سالك فأولئك هم أدونا ونسيلهم لآمنتهم وعهدهم راؤون والذين هم بشهادتهم قائمون فما للذين كفروا هبالك مختهين عن اليمين وعن الشمال حيسين صدق صدق الله العظيم kon ba léegi ñu wéyee liggéey bi di woo soxna ndumbe caam suratul hadid soxna ndumbe bismillah aousubillahi min aseytaani rajim bismillahi rahmani rahim sabaha lillahi ma fi samawati wal ardi wa huwa asisul hakim lahu mulku yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir huwa allazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayinatin yukhrijukum min zulumati ila nuri wa inna llaha bikum la raufun rahim wa lakum la tunfiqu bikum la raufun huwa lazi xalaqa samaawaati wal arda huwa lazi xalaqa samaawaati wal arda yaxlamu maa yaliju fil ardi wa maa yaxruju minhaa wa maa yanzilu mina samaa'i wa maa yaxruju fiihaa wa huwa ma'akum aynamaa kuntum wal ardi bimaa ta'maluuna basiir lahu mulku samaawaati wal ardi lahu mulku samaawaati wal ardi yuliju layla fil ardi wa yuliju nahaara fil layli wa huwa aliimun bi zaati suduur aaminu billaahi wa rasuulihi wa litu'minuuna bi rabbikum wa qad khasara miisaaqakum wa آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم وما لكم لا وما لكم وما لكم بالله ورسوله يدعوكم لتؤمنون بربكم وما لكم وما لكم laa tu'minuuna billaahi walakum laa tu'minuuna billaahi wa rasuulihi yad'uukum li tu'minuuna billaahi wa tu'minuuna billaahi wa rasuulihi tu'minuuna billaahi wa rabbikum wa qad axzaa miisaaqakum in kuntum mu'miniin huwa allazii yunazzilu 'alaa abdihi aayaatin bayyinaatin liyukhrijakum mina z-zulumaati ilaa n-nuuri wa inna llaaha bikum la-ra'uufun rahiim wa maa lakum allaa tunfiquu fii sabiilillaahi wa lillaahi miiraasu s-samaawaati wal-ardi laa yastawii minkum man anfaqa min qabli l-fathi wa qaatala ulaa'ika ahsanu darajatan mina llaziina anfaquu min ba'du wa qaataluu kullan wa'ada llaahu l-husnaa والله بما تحملون بس والله ما تحملون خبير من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يبصركم يوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انصروا نقبس من نوركم خلالكم وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينكم بسور باب باطنه فيه رحمة وسخيركم من قبله أصحاب صدق الله Maasi kon ba léegi ñu woo soxna Awa Fay suratul sumari soxna Awa bismillah a'uuzu billaahi mina sayxaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim تنزيل الكتاب من الله عزيز حكيم إن أرسلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له دين ألا لله دين خالصا ولسين اتخذ من دونه أولياء ما اعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يخدكم بينكم فيما كنتم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كسيب كفار ورد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى بما يخلق ما يشاء سبحانه وهو الواحد القهار خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على ليل وسخار الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى له والأسيس الخفار خلقكم من نفس واحدة وما جعل منها زوجها وأرسل لكم من الأنهار ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في سلمات ثلاث ذلكم الله له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تذكروا إن فإن الله غني عنكم ولا يرضى لكم ولا تسير واسرة مصر وقرى سمع إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بصار الصدور وإسا مسا الإنسان ضر دخل ربه منيبا إليه سميسا خولناه نهمة منهم من ناسي ما كان يده إليه من حبل وجعل لله أندارا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك خليلا إنك من أصحاب النار أمن هو حالة أن عليه ساجدا وحائما يخسر الآخرة ويرجو رحمته ربي خلق يستوي ربي خلق يستوي لسين يخلمون ولسين لا يخلمون إنما يتساكر إنما يتساكر أولو الألباب قل يا عبادي لسين آمنوا تقوى ربكم للسين أحسنوا في خاسه دنيا حسنة wardullahi waasiatu innama yoofa saabirona ajruhum bi xayri hisaabin qul inni umirtu an a'budallaha muxlisan lahu dini wa umirtu li an akuna awwalal muslimina qul inni axaafu in asaytu rabbi asaabi yawmin asimin qul lillahi a'budu muxlisan lahu dini ala lillahi dinul xaalisan wa lisina taxasu min dooni wa lisina taxasu min doonihi awliya ama axbuduhumo ila awliya ama axbuduhumo awliya qul lillah axbudu ma qul lillah axbudu ma xulilaax ahbud maa ahbuduhumoo ilaa li xariboona muxlisan lahu diini lahu diini fa ahbudu masixtu min doonihi xuli innal xaasirina lisina xaasiro anfusakum wa axlihim yowmal xiyaamati ala saalika xuwal xusraanu mubiinu lakum min fawqihim siraaru mina naari min taxtihim siraaru saalika yuxayyiful laahu bihi ibaadahu yaa ibaadi fattaquuni wa lisina ajtanaboo taqoota an yaxbuduuhaa wa annaboo ilaa laahi lahumul busraa allazina yastamiuuna الذين يستمعون القول فيتبعون ويتبعون أولئك هداهم الله أولئك هم أولو الألباب أولو الألباب فمن حق عليهم كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرفا من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخيف الله ميعادا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينبع به في الأرض ثم يخرجكم به سرحا مختلفا ألوانه ثم يخرجكم تراه مصفرا ثم جعله خطاما للنبي صلى الله عليه وسلم أولي الألباب أفمن سرح allah sadruhu lil islam fa huwa ala nurihim min rabbihim fa waylun lil khasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dalalin mubin allahu nasala ahsana al hadisi kitaban mutasabihan man nasiya nak sahiru minkum jullodu lasina yaqsawna rabbuhum wa talina julloduhum wa qulubuhum ila zikrillah salika hudallah yahdi bihi man yasa'u wa man yudlilillah fama lahu min hamidin lafa man yatahi bi wajhihi so ala sab yawm al qiyamati wa hila salimina sawfa ma kuntum taksiban kasaba lasi kasaba lasi min hablin ba'dahum la khasiya tahiyaati dunya wala asaabu laaxirati akbaru law kaanu yaxlamuna wala xaddaara wala xaddaaram naa li naas fi xaasal fi xaasal quraan min kulli masalin la aluku bi tàqoon daraballaahu masalan daraballaahu masalan li rajulin xalqal yas wala xaddaaram naa wala xaddaram naa li naas wala xaddaaram naa li naas fi xaasal quraan min kulli masalin la alukum yatasakkoroona la alukum yataqoon daraballaahu لتستعقلون قرآن عربيا خير سيه والدين لعلكم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متساقسون ورجلا سلام لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنكم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم ba tey ñu wéy liggéey bi di woo Serigne Salihu Diagne Serigne Salihu Diagne bisimilah. وزر على موتى لايا وحياة لكل شيء عليم لكل شيء عليم الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة لم يوكم وأيوكم يحسن العمل وهو عزيز الغفور الذي خلق الذي خلق سبع سماوات تباعا ما ترى في عليه الرحمن في عليه في حال رحمن من من دمعود فرجي بزر كريتني كريتني من كريتني ينحلب إليه بصر ينحلب ينقلب إليك البصر بصر بصر خزي خزي عنه خزي عنه وخسير ولا حد سينا سماع الدنيا بما سمعها وجعلنا بما سمعها وجعلنا رجوع لسيئاتنا واهتدنا بما واهتدنا لهم أصحاب السعير وجعلناها وجعلناها وجعلناها وجعلناها ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا ma wala xadd fayna sama addunya bi ma saaxibil wa jaalnaaha waaw te ko ibi ba xam yamal foofu ba xam jërëjëf jërëjëf soxna sëriñ saaliw Thiam ci njàng mu am solo moom kon ba tey ñu sëriñ Moussa Thiam sóoratun jumaadu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 مالك هدوز عزيز حكيم هو الذي بعث في الأم إن الرسول منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلقون منه ولما يلقون منه بهم وهو العزيز العظيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل يحمل أسفارا بئس المثل هم الذين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 أولئكم الذين تفرون منهم ولنا الموت منكم ملاهكم ملاهكم فإنهم ملاهكم فإن فإنه فإنه ملاهكم ثم ترادون لم يحملوها إلى إلى إلى علم الغيب إلى علم الغيب وسعادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا سنودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وافروا البيع منكم يسروا البيع سالكم خير لكم إن كنتم تعملون صدق الله العظيم kon ba tey ñu woo soxna May Caam sóoratul Suruuf soxna May bisimilah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 الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تقلون وإنه في أم الكتاب لدينا علي حكيم أفنضرب عنكم الذكرى صفحا إن كنتم قوما مسرفين وكما أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتي من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأغلقنا هذا منهم من أمس الله والملائكة تلتهم من خلق السماوات والأرض يقولون خلق حقنا عزيز العزيز خلق حقنا عزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تأكلون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنزلنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام تركبون لتستووا على سرورهم ثم تذكروا نعمة ربكم إذا أثبتم عليها وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا مؤمنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعل له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم يتخذ ما يقرأ بنات وأسواق بالبين ويسعى يكن حقا دخول مما سرى بن الرحمن مثلا دار وجهه مسودا وهو قسم أو من يمشي في خلة وهو في قسام خير مبين وقال موسى رحمة ما عبدناهم ما لكم بذلك من حلم لكم إلى لكم صنع أما آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على ذلك مقتدر وكذلك ما أرسلنا من قبلك في عدد من نسل إلا خير مترفقا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على ذلك مقتدر صدق الله العظيم kon tay tey woy liggéey bi di woo soxna Kumba Njaay moom nday jóob soxna Kumba Njaay moom nday jóob bismillah sooratun shaat أعوذ بالله من الشيطان الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سات والقرآن ذي ذكر بل الذين كفروا في زهاه وزهاه كما خلقنا من حبلهم في حرن فنادى ولا تاهينا منازل وأجيبوا أن جاءهم منذير منهم وقال الكافرون هذا سحير كساب جاء لالهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وأنت له ملأ منهم وأنمسوا واصبروا على آلهتهم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة إن هذا إلا اقتلاح أنزل عليه سكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يسوق أصابي أم عندهم خزائن رحمة ربي عزيز الوهاب أم عندهم أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جن ما هنا جن ما هنالك المقسم كسبت حبلهم قوم نوح وعاد وفرعون سلوتادي وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة Ula حقك الأحساب إن كل إلا كسب رسول فحق عقابه وما ينصر هؤلاء لا صيغة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا أجل لنا حتنا قبل حسابه اصبر على ما يقولون واشكر عبدنا داود ساليد إنه أواب إنا سخرنا جبال معه يسبحون بالأسي والإسراح وطير محصورة كل له أبواب وسددنا ملكه وآتيناه حكمة فصله التابع وهل أتاك نبأ خصمان إذ تساوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تسطط وحدنا إلى سواء صراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نهجة ولي نهجة واحدة فقال أكفلنها وأساني في الخطاب قال لقد سلمك بسؤال نهجتك إلى لآجه وإن كثيرا من خلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا tey ñu woy liggéey bi di woo sëriñ Ibrahima Ndour sóoratul Fusilat sëñ Ibrahima bisimilah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 حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون بصيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما أذقنتنا وقرن ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إنما أعمل قل إنما أنا بشركم مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واستغفره ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أيكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها خدر فيها وأواتها في أربعة أيام من سواء لسائل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فالأرض يأتيها طوقا أو خرقا قالت أتينا طاغين فقدهما سبع سماوات فأوحى بكل سماء أمرها وسعنا السماء الدنيا ما سبقها وخفصا ذلك تقدير العزيز العليم فإن هردوا فقل أنصركم ساقط من لا ساقط الآن وثمود والذين إذ جعلتم رسول من بين أيديهم ومن خلفهم ولا تعبدوا إلا لا قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلت به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من نزل مما هو ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو هو أذل منهم هودا وكانوا بآياتنا يجحدون صدق الله العظيم ba tey ñu woy liggéey bi soxna Yaasin Njaay moom Ndey Faatu soxna Yaasin bisimilah sooratun saba'i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 إن سغنس بهم ولا دعوا نسط عليه كسر ونسمائي إن إن سالك لا يأتي لكل أبد من ابن إن الذي لولا قد آتينا داود من الفضل وجبال ما هو تنى له خريطة أنما صحاد أنما صالحة وخالد صاد وعمر صالح إني ما تمر بسل ورسول ما تاريخ خدوه صار وصلنا له أنا هنت ما نسق من أنا من نسق من أصحاب سهره يعلمون له من يعلمون له ما يسعى من نهار وما سوى جبال قال جاء براستهم لا أرى دار سكر وخلى البحر سكر فلما حدنا عليه موت ما دلهم ساتهم فلما هرى تمام جن قالوا كان يحلم محب ما لا بشفاء سامهر لحد كان لسبع مساكنهم عاتوا

alhamdulillahi lesi loxo maa fi samaawaati wa maa fi raad wala xol alhamdu fil laaxirati wa huwa aqimu xabiru yaxlamu maa yuliju fi raad wa maa yuxruju minha wa maa yansilu min asamaa'i wa huwa wa maa yansilu min asamaa'i fiha wa maa yansilu min rabbika wala huwa ghafur wala huwa rahimun ghafurun wa qala resina kafaru la tatina saatu قل برا وربي لتأتينكم عليم الغيب لا يحسب أمره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا يصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم أصحاب المرجس النليم وترى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندل لكم على رجل ينبئكم إذا مسكتم كل مماسخ إنكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا أم به جنات بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال بغد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نقص بهم الأرض أو نقسم منه كما الله يحمي كفسا من السماء والأرض من نقسم وأنا سالك لا آيات لكل عبد منيب ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوي ما أقو وطير وأنا لكم قديدة أني أحمل سابقات وقدر في سرد وأعمل صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان ريحا قدوها صخر ورواهما صخر وأرسلنا له عينا خطر ومن الجن من يحمل بين يديه بإذن ربه وما ومن يقصد من الجن ومن يحمل بين يديه باسم ربك ومن يقصد من أصحاب سخير يحملون له ما يساء من مخارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور لاسية اعملوا على داود سكرا وخليل من عباده شكور صدق الله takbiir takbiir takbiir jërëjëf soxna Yacine Ndiaye xanaa di ñaan suñu borom rek ñu fekk ko ay ati at te rafetu fekkin barke borom Tuubaa di ñaan yàlla sunu borom lu ñu fi jàng mu néew mu am mu bari sunu borom ful ko te def ko yërmande ak tawféex ci réew mi ak ci dëkk bi ñu koy ñaanal mbooleem réew mi yëpp waaye di ko ñaanal mbooleem ku dëkk ci dëkk bi yëpp di wax ne tamit lii ab soññal la boo xamante ne bii waaw ah, ku déglu njàngam alxuraan mi xam ne ñoom xëyuñu rek di dem ak ñëw wala itam ci leen di jàngal nekk si lim nekk rek di xool ab soldoom ku dégg lim jàng xam ne mi ngi leen di toppatoo waaye mi ngi leen di gëstu waaye mu ngi def tam kemt laay kàttanam pour ñu xam li ñu war a xam lépp ndax njàng mi boo déggee saar yi yéen fi tar yi xaw naa xëcc lool si ndaw ñi waaye boo gisee ni ñu ko taxawee ku si nekk def nga si sa kemt kàttan ba fas ki yéene matale loolu nga xam ne moom la la sa sëriñ jox ñuy bàyyiwaat xel tamit ne alxuraan kenn amul fayam waaye it alxuraan kenn mënu koo def si dënn doomu aadama bi te méttiwul waaye sant yàlla it buñ koy defee si seen dëkk ndax mën na doon koo a jëggaane feneen muy metti lool kon nag bu ñu yàlla suturaale ñu am ko si dëkk bi mu nekk si dëkk bi nga xam ne képp ko xam ne ku si génn dangay ngay waaxu rek ndékki ba suur waaxu dugg si sa daara jàng añ jot nga waaxu génnaat dem sa kër añ kooku sant yàlla la waaye li ñu bëgg a wax foofu itam mooy ñu gën a fullaal li nga xam te ni bi moo ne njàngam alxuraan muy si réew mi waaye muy si tamit fii ci dëkk bi ndax li ñu bëgg a wax foofu mooy alxuraan dafay am école am fii liñ bëgg a wax foofu mooy alxuraan dafay am école français it am na fi duñ ñëw it bon na waaye ndaxte ci ci réew mi toll njàng français da see bokk waaye buñ xoolee xam ne alxuraan moom mooy li njëkk te mooy liy mujj ñuy gën a dara jàll ndaw ñi nga xam ne ñoo takku wala seeni waajur itam takku ngir ndaw ñoo ñu jàng alxuraan si ni leen di fullaale wala si ni leen di dara jaale mooy ñu gën leen a jox seen gëdd jox leen gën leen a waaye tamit gën a jàppale carrément sëriñu daara bi nga xam ne moo nekk ak ñoom di jubbanti guddi ak bëccëg waaye itam ñu bàyyi xel ne alxuraan gone bu ko mokkal ndax ba nga nee baa dégg nga lañ ko waxe nga ne si dégg nga nañ ko waxe yóbbu nga si ñaari waajur yi xette nga leneen kon muy loo am solo loo xamante bii mënul ñàkk si muy réew waaye da ngay gis ñaari gone yoo xamante ni dañoo bokk benn kër kii di jàng si daara ji waaye kii di jàng sa école ba ak jamono ji ñu toll nga xam ne mooy heure vacance français bi xale bi nga xam ne moo vacance yi jàng ne ne dafa jàngi sa école ba ba vacance jot nañ koy fulaalee ak nañ koy te teralee jëndal ko ay yére yu baax. ndax ñoom sax yére yo yàlla mu yàlla jigal du doon yu baax waaye yu baax lañ koy wax jënd ko ay yére yu yu mucc ayub si ñoom dara jaal ko wulawre ko ba nga xam ne moom mi nga xam ne mooy jàng français bu solo ba génn yow mi nekk si daara ji moom da ngay xeeb sa bopp xeeb sa bopp nag mooy yow mi nekk si daara ñaar fukk juróomi dërëm yu jëndal karim sax da lay tël du la ko jox wala nga ne yaay juróom mu ne la yoruma kii xii di jàng français dañ koy jox deux cent francs mu sangu ba set ñu mi leen ko teg ca yow mi xëy di jàng français sël mu bu baax sax mënu ko yow mi xëy di dem ci daara ji sël bu baax sax du la ko defalee kon ñun bu nee dañuy saytu alxuraan wala dañuy gëm dañu gëm alxuraan man moom xolaat kon li ñuy def lan la ñaar yi ñu bokkoon ndey ak baay kii xëy nga sangoo ko sango ko ba set mi leen ko ba mu jekk solo ko ay yére yi nga xam ne moo yaakaar nga ne moo gën a rafet te daan ko bu taq suuf yow ki nga xam ne mooy dem sa daara ja moom xamoo sax sëlmu na wala sëlmuwul na xëy rek nga ne ko jàng daara ji ubbi na mu départ dem juróomi dërëm yu mu jënd karim sax doo ko jox yow kon yow ana arxuraan yow wala yow lan lan ngay dund si arxuraan wala yow lu la arxuraan di def xanaa da ngaa fàttali ne bi nga juddoo alxuraan lan taxawal wala da ngaa fàttali ne bi ñu lay takk alxuraan da ngaa fàttali ne bis wujj bi nga wujj sa borom arxuraan la ñuy taxawal kenn du fa taxaw di woo français bi de doon lu tudd mukk ñu ne nan woo français bi. wala du la maye mukk ñu tax wala na nga jànkata français bi déedéet sëriñu daara bi rek sëriñu daara ja rek la ñuy wax kon ñun nañ nañ gëm suñu bopp xam li am lan la ay dëkk-dëkk dañ koy wuti fu nekk di jàng yow dëkk bi daara ji nekk si sa dëkk nekk si sa biiram pénc say kon di lekk sa kër di naane sa kër di sangoo sa kër di soloo sa kër nga la waaye kon war nañ leen a mën a toppatoo war nañ leen a mën a defar ba nga xam bii ku leen gis xemam daara ji daara ji itam ñi ngi ñaan si suñu borom suñu borom kàttanal ñu dara jàng ñu ba yére bi nga xam ne am nañ ko ci moom am ko si daara ji am ko si dëkk bi tamit si alxuraan suñu borom defal ñu ko lu kaay suñu jot ndax bëgg na mu dem a dem a dem a dem ba nekk ay internat ndaxte am na ñuy jóge fii si dëkk bi di dem di jàng internat wallaay asin day jàng internat ñëwaat ñi na nekk xam ne ñoo na nekk ñoom fii si daara ji di jàng si daara ji boo leen daj boo leen dajalee wàcce kaamil nga xam ne ñaari jàng yi du benn wala nga xam ne ñii kii doxin wi doxin wi du benn internat léegi wala russi nañ ko ba nga xam te ne bi moo français li français bi def lay def li bi dund lay dund ka jaar internat bu génnee yar ba nga xam ne moom la war a am ak ki jaar si daara ji seen ñaari jëmm yi dafay wuta lool kon nga xam ne kon yaa ngi dabi loo xamante ne bii doonul li ci yow kon nag li ñu am fii war ko defar nag mooy defar jikko yi defar nit ki ba nga xam ne boo ko gisee man koo naw ci jëmmam ak meloom mi ngi si sa dëkk kon ngalawaay yow lan ngay jëggaan yi damay wax toujours ne si ñaam diyaal si dama koy wax toujours na ko njuum liñ am dañ kaa da xam njuum luñ bëgg am am nañ ko amul dara loo xamante ne bii tey am na si réew mi ñu koy jëggaan yi te njuum amul ca part du benn du benn ndax bu fekk ne jàng français la am na ñu fi jàng français ba ba ba yor seeni diplôme am na ay médecin am na lépp kon ñoom amul lu muy njëggaani waaye dañoo desee xam li liñ am lan la liñ am nag il faut ñu xipp suñu bët xool man koo jariñoo di ñaanat yàlla sunu jëwriñ sunu kilifa Moussa Tine sunu borom dara jaal ko sunu borom taxaw ko aar ko ba li nga xam te ne bii moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon jàngal si alxuraan ak lam sa jànkonteel yépp sunu borom wàcc ko si jëmmam jàppale ko ba am payek yonente bi alayhi salaatu wa salaam si barke guddi gi ñu ngi koy ñaanal ñëpp di ko sàkku si ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kon seen abdou bu ko defee kàddu gaa ngaw jërëjëf fiñ mbay euh, ci kàddu yi am solo yi macha allah mat na lool fi fiñ Ilimaan Njaay moom it jërëjëf ci taxaw bi ak waajtaay woowu euh, di ñaanal comme ni ko sëñ Abdou waxee rek kilifa gi sëriñ bi muy sëriñ musaa moom mi nga xam ne ñun ñi ñëpp ci ay loxoom lañ jaar ba ndaw ñi fi wax tey li ñuy wax ñëpp ci ay loxoom lañ jaar moom mooy koo xam ne ni yàlla da koo defal kéemtaan mboolem daara yi ñi fi nekk ñëpp man nga ne bisub tey bii koo gis mu taxaw ci doon baas gii rek di yëngu ca bokk ci daara ji wala mu bokk ci daara bi jaar na ci loxoom la jaar loolu nag kon day mel ni ko yàlla jaar la ci loxoom am na ab cëgg bu mu ca jël ba fàtte ñu lam lañ jaare fa moom ci ay jigéen ak fi comme ni ko suñu ab di waxee woon rek dañuy wax ne dëkk bi bokk na ci xéewal gu leen suñu borom xéewale mooy suñu wàcc soo kër gu nekk fi ne nii su bëggee ab wàccub kaamil mën naa tànn jigéen dafa nekk ñu wàccub kaamil ca doo ca doo ca boole sa doomi góor xanaa kër yi ndaw yi waaye kër yi mag yi fi am yëpp man nga ne kër gu mag gu ci soxla kaamil mën naa dem ci biir kër ga dajale fa xale yu jigéen ya fa nekk ñu wàcc kaamil fi mu ne nii ab kaamil suñ ko bëggee ay jigéen a koy wàcce loolu nag ak cant la boo xam ne luñ ci war a gën a mën góor góorgóorlu rek doyut waaye tamit luñ ci war a mën a gën a farlu rek bay gunge njaboot gi tamit ci ak jàng ci noor ci njàng mi ci gën a xóotal seenum njàng da ciy baax lool léeg-léeg tamit waajur yi leen xaw leen dal ci wàllum njàng mi muy suñu commencé njàng mi rek xale bi moom fi ñu déggee ne wàcc na wala jenn kaamil bi rek lay njëkk xalaat mooy xale bi moom daanaka dañuy dañ ko jàppe borom xam-xam wala ñu jàppe na moom jenn téere yi ci fekk na daa war a commencé am njàng ndax am njàng mi ngi commencé bi bu nee nit wàcc na alxuraan fa la am njàngam tàmbali bu nee wàcc na wala mokkal na rek dagg na am njàngam day bu bu yàggee tuuti moo ke feral ke demoon ba dem mag ci mu daara fexe ba fer ijji ñoom ñaar dañuy yem képp ci am njàng ndax njàng mi day mel ni ku ñëw ci buntab dëkk ñu ne la fii mooy dëkk bi xam-xam nag mooy nga dugg ci biir dëkk bi xam waa dëkk ba xam kër yi ci dëkk ba yépp loolu mooy xam-xam waaye bu fekkee ne ki wàcc moom daa ñëw ba ci dëkk bi rek bunt dëkk bi taxaw xamut dëkk bi xamul kër ci dëkk bi xamul pénc bi noonu rek lañ koy mën a misaale ñu ñaanal tamit ndaw ñi nga xam ne ñoo doon tari alxuraan ji ni leen ko doon ñaanale chaque at rek ñoo ngi ñaan barkeem alxuraan wàcc ci seen kaw ca def ko ci seeni waajur ñi leen taxaw di leen toppatoo ngir ñu dem ca daara ji dem ak ñëw ginnaaw bi ñu ko ñaanalee sëriñ bi muy sëriñ Moussa suñu borom guddalaw fanam may ko ak wér te yokk taxawaayam yokk man-manam yokk ak wéram suñu borom gën koo bàyyi suñu kanam gën koo bàyyi ci dëkk bi ndax taxaw gi mu koy taxawu lépp rafet na ñoo ngi sant kon mboolem dongo yi fi jaar yëpp ñu jóge tëgg. ñi jóge ci Juuf ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci bàyyeekoo ci biir dëkk bi ñoom ñëpp rek daanaka jenn daara ji ndax boobu ba léegi ñooy bokk daara ji daara ji moom daaraay ñetti dëkk yooyu la moom la mos doon moo tax ñoo ngi lu fi mën di dañ koy bokk dañ koy bokkoo duñ ne waa Njumay def programme bi rek xale yi dëkk Njuum dañ ñoo cee bokk déedéet ndax lépp lu ñuy def ñoom dañ ciy am wàll ñu ñu am ci wàll comme ñoom comme ñun niñ ci amee wàll ñoom noonu lañ ci amee wàll moo tax lépp lu ñuy def rek dañ koy bokk ñu defandoo ko ñu bokkandoo ci tegandoo ci suñu bët ñun ñëpp kon ñoo ngi leen ñaanal tamit ndaw ñu bàyyee ko foofa ak ndaw ñu bàyyee ko fii ñëpp suñu borom guddal seenu fan barke alxuraan am ci ñoom ak leeruk alxuraan ci def ko ci waajure tamit ñoo ngi sant ñëpp kon tamit ñu waajalaat rek nga xam ne programme bi fi mu ne day day a tàmbali li ñu fas yéene ñu defaraat toogaay yi ak soxna yi ñu wàccaay sagam alxuraan ji génn kon ñu wàccaay defar waajal durus bi ak góor yàlla yi ñëpp. lu commencé ci murtani kaamil yi nga xam ne sosoon nañ ko depuis weeru gàmmu ba léegi ak lépp rek jëm ci programme beeg wàllum rajaf beeg ak kuréel xasida yi lépp ñu ngi koy waajal insha allahu taala ñoo ngi leen ñaanal di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi waaw bu ko defee ñu sàkku si mbooleem waa daayira Matlabul Fawzayni bi yëpp ak mbooleem ku dëkk si dëkk bi ak kuy dégg roji ndax tey lii tey bu amee ba taxaw waa yaakaar naa ne war nañ see sant sunu boroom waaye tamit war nañ see sant ki nga xam te ne bii gannaaw yàlla sunu borom kàddu gi dafa jaare woon ci moom wàcc si dëkk yu tey ba lii am fi ba mën a tollu nii muy kan muy imaam Ndong imaam Jaañ Ndong di ko ñaanal sunu borom tawféex yu sax dàkk di ko ñaanal taraangay àddina ju sax dàkk waaye tamit di ko ñaanal mbooleem ku dëkk ci dëkk bi yépp ndaxte it lii biñ koy fondement ci ñun yaakaar naa ne ci ñun ñi nga xam ne ñoo ko fondement ba ñu ñu fi nekk di wax tey amul kenn ku ci mën a amal sa bopp ñaar fukk te booba yàgg na lool moom mu taxawal ko ci taxawaay waxante ne bu wu difficile la woon ñu ànd ko ak moom di ci jóg ko daanu ba suñu borom mën ñoo dimbali tey ñu taxaw di programme programme bu toll nii mu daan ko ànd ak ñun nag guddi ak bëccëg suba ak ngoon daañu xiir ci lu baax daañu sant ci lu baax daañu digal tamit ci lu baax ba suñu borom kon dañuy ñaan yàlla suñu borom dimbali ko bu baax a baax a baax a baax. ba lépp lu mu yéene ci dëkk bi wala lépp lu mu yéene ci réew bi suñu borom kàttan na ko ko yombalal ko ko ci kàtt ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi koy ñaanal bu baax ci guddi gi